maire de Dakar maa ngi lay ñaan ci njëkk waxu troisième mandat bi président nga teg ci suuf laa bi nga ci yow maa ngi lay ñaan ci njëkk waxu troisième mandat ñu teg ko ci parce que lu ñuy dund tey nii jaru ko te lii yépp lu ko waral mën nañ juum wante lu ko ragal euh, lu ko waral mooy kan bi ñu ci bëri ñu pour mën a toogaat fii te président yow xam nga ñun xam nañ te yàlla mën na seede wax nga sa gémmiñ suñu nopp leneen rek ko waral te mën naa juum je pense que waxu troisième mandat bi soo ci nangoon yàbbi ci daanaka xol mën nañ féexaat moo tax président may sàkku ci yow nga génn wax ak sa askan wax leen lu ñu mën a dégg parce que président nooteel bu ñuy wootee Sénégal jaay doole bu ñuy woote Sénégal mënatul continuer kon nag président xoolaatal sa taxawaay parce que ñu nekk ci mbedd yi mu neex la mu naqari la keneen buur amoo fi noon wax naa la ko di daal ci ban anam dimbali la pour xool naka la lay wutal yoon nga génn fi par la grande porte parce que mooy sa cër président président sélection bu ngeen nam ma def Sénégal kenn mënu ko fi nangu parce que constitution lu mu leen may ci sañ-sañ mooy ngeen nangu organiser moo décidé que sélection jeex na may sàkku ci yow tamit tamit nga nangu loolu président moo tax président ne lépp askanu Sénégal ñu bàyyi xel ci lu ñuy wax parce que yàgg nañ fippu yàgg nañ wane suñu naqar wan absolu te wax naa leen ko ne naa leen lu fi xewoon mars 2021 yan laay waxal askan mi bëgg ngeen bàyyi ci xel parce que askanu Sénégal da ngeen am xel macha allah bàyyi leen ci xel. li fi jotoon xew ci mars deux mille vingt et un mu bettoon ñépp wolof njaay nag ne du la bett mën la waxoon naa leen bàyyi leen ci xel depuis pour souhaiter à la Grande Muette la bienvenue chez eux la bienvenue dans leur capitale les inviter à continuer à rester cette armée républicaine exemplaire aux côtés du peuple sénégalais Mais je voulais vous rassurer, vous, cette grande muette, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Nous avons trouvé un dénouement heureux à cette situation. xel ci lu mu leen wax. Que personne vienne dire que gisee ko woon noonu wala dégg ko woon noonu. kon nag maa ngi sàkku tamit ci tous les acteurs politiques de tous bords y compris suma mbokk yu nekk biir opposition ñu seq ak ñoom suñu Yewwi Askan Wi ak suñu F24 te xam ngeen ko du ngeen ay xalel te bu leen fooy seen xel mu munu leen ne da ngeen bëgg a jiite réew mi réew mi toll fu mu toll tey bu leen taxawaat ci kanamu askanu Sénégal ngeen ne da ngeen bëgg jiite Sénégal déet bugg leen jiite Sénégal dama ne lu kilifa diine yépp sant xam ngeen ko au passage ñu ngi nuyu tous les chefs religieux de ce pays toute religion confondue ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar leen di jox seen wàccuwaay te may biiralaat wax ci nee naa kilifa diine yi wàccoo nañu ak askanu Sénégal fu ñu naroon wax wax nañ fa ñu naroon waxal wax nañ ak ñoom lu ci des mooy que les acteurs fassent preuve de tenue et de retenue mbokk yi am na ñu bëri ñu jàpp ne ni que président dina def troisième mandat te bàyyi nekk fii di jéem a xoqalante suñu biir lu tubaab di wooye se faire peur jouer à se faire peur loolu amul solo amul benn solo parce que xam nañ kañ la ñuy commencé mënoo am élection gis naa ci ouverture du dialogue bi parce que ma foon dama doon xaar ñu jox ma les termes de référence lan la ñuy waxtaane parce que man lu ma tax a jóg dem naa ne ataaya déet man naan ataaya taxu ma jóg lu ma tax a jóg mooy dem waxtaane Sénégal ak lan la ñu mën a def ba génn Sénégal ci guutu bu mu nekk nii am nañu bokk ci beneen boor bi ñoo xam nag lu leen tax a jóg ñoom ñu ne daal d'accord ñu si tey bu leen jox gaañi excuse wala prétexte pour ñëw na leen dëkk bi dafa instable mënuñu fi organiser élection bu leen ko def xel mooy xeex xol du su fa am élection ndax la ñu ne dafa amoon une rébellion dans le nord de ce pays te bu leen nangu gaay di dem di ñu yóbbaale parce que réew mi ala kuli al ñoo ko bokk te lu ñu bokk dañ koy pencoo duñ ko pàccoo lu ñu bokk dañ koy waxtaanee duñ ko yàq-yàqet kon nag mbokk yi damay bañ a guddal mais fu may daanee tamit te metti na ci ñëpp euh, yenn yi su ñàkk wax dëgg yàlla ngeen def seen kéem kàttan mu ñàkk parce que yéen yaa leen choisir def maintien de l'ordre sorte munul ànd ak bouclier humain dañuy waxante dëgg munu leen dem jëli xare bu c'est certes un droit mais baa leen xel ci dara ñu nekk ci mbedd bi ñoo xam ay policier lañu ñoo xam ay gendarme lañu du ñu ay chinois ay sénégalais lañu nous sommes des voisins nous sommes des parents dara jaru fi yenn yi nañ ko rafetal parce que lu jeex jeex na te lii jeex na buñ ko yàq nañ ci ànd ak xel fu may daanalee mooy bàyyil xel ci loolu Sénégal ji te xam nga fuñ lay xaare te wax naa la ko comme ne nga nañ la ko ñaan ci njëkk man mii Barthélémy Dias ñaan naa la ko ñetti yoon ci njëkk en tant que maire de Dakar en tant qu'acteur politique en tant que jeune frère mbokk yi loolu moo nekkoon kàddu yi di ñaan yàlla di suñu borom yàlla na yàlla yokkal sutura Sénégal yàlla na yàlla aar Sénégal yàlla ne leen yàlla may tawféex am mettit lool parce que lu ma doon à l'entame de mon propos je souhaiterais présenter mes plus sincères condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais. Mais surtout, dire toute la peine qui nous anime en tant qu'acteur politique, mais en tant que citoyen sénégalais lambda. Chers concitoyens, nous avons toujours vécu, toujours trouvé la force de nous relever et surtout l'intelligence pour pouvoir dépasser certaines situations. Aujourd'hui, je ne souhaiterais pas commenter cette parodie de justice qui a plongé le Sénégal dans cette situation. sénégalaise est à l'origine de quasiment tous les maux dont souffre actuellement le Sénégal. Cette justice, je ne parlerai pas de sa condamnation parce qu'il n'y a pas de condamnation. Nous avons assisté à une volonté manifeste de vouloir verser dans une disqualification, et ça ne peut plus continuer. Et l'objectif l'objectif recherché dans de justice, c'est de trouver les voies et moyens de créer les conditions d'organiser une Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est la volonté d'un homme qui est en train de s'abattre sur, sur d'honnêtes citoyens, sur des leaders politiques qui n'ont peut-être commis qu'un seul crime, c'est de nourrir une ambition de servir leur pays. Et cela n'est pas honorable dans une démocratie qui se respecte. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président de la République, je, concernant la question du troisième mandat, vous avez dit que on n'a qu'à vous le demander en tout respect et en toute courtoisie, et qu'il n'est pas question que vous acceptiez que certains vous le demandent par la force. Monsieur le Président de la République, pour la paix au Sénégal, entre vos mains de la sortie de crise de ce pays et personne d'autre. C'est vous, Monsieur Macky Sall, vous, Président de la République. Alors, comme vous avez demandé à ce qu'on vous demande, s'il vous plaît, de ne pas briguer le troisième mandat, Je vous demanderai trois fois, s'il vous plaît, Monsieur le Président Macky Sall, d'évacuer cette question concernant cette volonté qui vous est prêtée de vouloir briguer un troisième mandat. D'abord, je vous demande, s'il vous plaît, en tant que maire politique, le Sénégal ne mérite pas qui nous est imposée au nom de la bêtise politique, et excusez-moi de cette expression. Deux jours de manifestation, 15 morts, injustifiables et inacceptables. Nous avons été, nous sommes et nous comptons rester ce modèle de démocratie sur le continent africain et à travers le monde. Et monsieur le président Macky vous avez la responsabilité historique d'accompagner le Sénégal à continuer à rester debout, droit dans ses bottes, Parce que le peuple sénégalais, en votant pour vous, n'a pas voté pour être massacré, n'a pas voté pour être humilié. Le peuple sénégalais pour vous, pour conduire le Sénégal vers un développement durable et viable. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président de la République, je vous interpelle directement. Je vous invite à prendre vos responsabilités à vous adresser au peuple sénégalais. rassurez le peuple sénégalais. Prenez l'engagement que vous avez eu à organiser en revisant la constitution du Sénégal, qui, vous l'avez intrigué un troisième mandat. Parce que cette question, Monsieur le Président de la République, de vouloir briguer un troisième mandat est à l'origine de tout ce qui se passe actuellement. Parce que si le président Abdoulaye Wade, au passage à qui je rends un vibrant hommage, avait décidé d'en faire de même, je ne pense pas qu'aujourd'hui vous serez président de la République du Sénégal. C'est la raison pour laquelle je vous invite respectueusement, je vous invite une fois de plus à revenir à la raison, monsieur le chef de l'État. Regardez ces enfants. Regardez ces pères et ces mères de famille qui souffrent. Regardez ce pays aujourd'hui qui est à genoux. Je vous invite à vous ressaisir. Je vous invite à prendre cette main qu'on vous a tendue. Vous avez été dans ce pays ministre d'État, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, premier ministre et chef de l'État. Ce pays ne vous doit plus rien du tout, monsieur le chef de l'État.